Euh, remercier ak féliciter suñu délégué régionaux yi ak suñu délégué départementaux yi ak suñu délégué communaux yi amoon nañ sax ay délégué de quartier ak bien sûr suñu mandataire national man bu ma duggee ci mbir dama ciy def sérieux ba war te lii may def duma ci apprenti du ma ci apprenti président Macky Sall lii nii maa ko jiite woon 2019 jiitewaat ko 2022 kon lii kenn mënuma koo kenn mënu ma cee turiande muy jàll mun a nekk loolu it ñoom waroon nañ koo xam ma wax leen mbokk yi gërëm aussi suñu parrain yëpp ndax parrainage bu mucc ayib la ñu am amuñu daanaka doublon interne. tirage au nag yàllaa ko yor malgré le nombre de doublons il a fallu que ñu ne dix mille parrains gisuñ leen ci fichier bi mais dix mille parrains yi wax leen ñu kan la ne leen ñu Fatou Gueye nangam gisuñ ko ci fichier yi ñu génne leen seen carte électeur tegal leen ko ndax loolu it prévoir woon naa ko bu ngeen ñu joxee list bi balaa ngoon ñu génne leen ku ci ne ne leen carte d'identité ma ngi nii ak ak numéro carte d'électeur am numéro national d'identification ak léppam mooy lii ma leen tegal mais dafa yomb nga yóbbu sa clé rek ñu ne la am na 10 000 parents yoo xam ne gisuñu leen duñu la ne kan la duñu la ne fu ñu dëkk acca nga def kooku di benn bu féete boor donc liggéey bu mucc bi leen def amut kenn koo xam ne kii nee nañ la sa tournée ñu ko bindee du noonu wala fa nga dëkk du noonu déedéet. ndax bu buñ ca bàyyi woon seen 10 000 yi ñuy wax mais xam nañ ne jàll nañ devise xam nañu ko <laughs> donc fallait trouver une solution ndax président Macky Sall li muy wut mooy fayu troisième mandat bii mu amut waaye la loolu du jàll c'est-à-dire troisième mandat moom yaa en aura pas du ci moom du ci Amadou Ba nga woon naa leen ko fii day bàyyi troisième mandat bi Amadou Ba mu moom ne day continuité mooy troisième mandat bu Macky mais benn du ci am te nag moo wax ne man mënumaa dindi ci processus électoral danaa ko indil vingt mille mën naa ko indil cent mille parrain ñu ngi nii fii ëpp na lii sax waaye nag ma ñëw ci Ali Kalaj bi suñu mandataire Sidi Bara ba mu njëkkee dem dafa ñëw déposer li ñu naan récépissé de dépôt de déclaration de candidature boo nekkee candidat moom ngay yóbbu da ngay dem ca fañ tuddee greffe mooy bureau ba ñuy enregistrer seen kayit ngeen suivre ma bu baax ba mu yóbboo ñu ne ko déposé nga photocopie carte d'identité attestation d'investiture déclaration sur l'honneur la ñuy laajte yépp déposé nga ba fam mujjee ñu ne ko déposé na quatorze cartons contenant def ko yu ñu def ci ay mallette yoo xam ne ci quatorze régions du Sénégal la ne leen déposé mu mat cinquante huit mille neuf cent soixante quinze mënoo woon dépassé cinquante huit mille neuf cent soixante quinze moo tax yii bëri des fi da nga koy def ci carton def ko ci clé ba mu ñëwee dañ koo recevoir ca greffe ba jël clé bi ànd ak suñu informaticien bi toog dugal ñoom ñu toog greffe toog ñuy compter Dakar clé 1 clé de Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Sédhiou Tamba Thiès Saint-Louis de dégg leen bu wax Saint-Louis muy ne ah ngeen pare bu leen neexee ngeen photocopier Saint-Louis continuer ba muy 14 14 région la ñu n'est-ce pas bu ci nekk ñu wax la la nga dépose Saint-Louis ngi ne ah su ngeen ëlbatee kii mooy tampon bi tampon moom kenn du ne leerul n'est-ce pas bi tampon moom leer na conseil constitutionnel maître Ousmane Ba le requérant mooy sama mandataire bi de déposé limal naa leen ne Saint-Louis ba ñëwee ci suba ñu dugal ko ñu ne leen Saint-Louis na waaw ñaata conseil constitutionnel la am fii ci réew mi du benn sa greffe ne enregistré nga Saint-Louis ñu ñëw toog ñu ngi nii moom mii moo toogoon informaticien bi mandataire national baa ngi nii toog ñu ne ko gisuñu Saint-Louis donc ñu éliminer de notre parrainage toute la région de Saint-Louis waa Saint-Louis ngeen déggee ko noonu yéen yi ñu dugg seen kër yi sonn ci vraiment seeti leen waxtaan ak yéen ngeen d'accord pare nañu waxuma ville de Saint-Louis rek de am na ku fa dëkk région de Saint-Louis ñu dindi ko waaw yow nooy dugalee clé wu jàmbur bi mu la jox nga ne Saint-Louis ngi ci mu ñëw pour vérifier nga ne ko Saint-Louis newu ci njuuj a nga bu leer nañ lii mooy loxo yàlla day dugal seet loxoom ci yëf yu mel nii njuuj njaaj yi ndax mënoon nañ wuti beneen pexe bu dul bii mais pexe bi dafa leer mu ngi nii conseil constitutionnel moo ko signé ancien garde des sceaux la ministre de la justice li may wax dama koy teg ci ay kayit ak ci ay preuve yéen mu ngi nii yéen a ko signé Saint-Louis ngi nii ñuy ñëw toog ñu ne leen gisuñu Saint-Louis ah seen clé la ah, lañ leen wax mais clé bi yéen lañ ko jox ba ñu ko joxee bañ leen ko joxee greffe moo ne nii signé ko kon yàlla moo àndul ci li ngeen di def yàlla moo ci àndul lii yàllaa ko feeñal lii ba ñu koy déposé leer na nañ dañu ubbi clé bi ah amul dañuy xool carton yi ubbi clé bi ñu affiché ko compté lépp ànd lépp lépp mat lépp lépp mat nañu delloo suñu ay parrain wu Saint-Louis ci biir ah lu ko may ñun dinañ porter plainte contre X auprès de ña ne woon ña joxoon club bi te jàpp naa ne agent assermenté bi war naa wax ci lii parce que moom dafa waat mooy assermenté booy njuuj njaaj nag ñoom war nañ xam ne ñun ñoo leen ëpp bopp kam <laughs> war na noo xam loolu ndax mooy lii mooy pexe bu sottiwul ak pexe bu matul kon lii mooy discrédité lii ñuy def nii discrédit preuve baa ngi nii rawatina nag naa leen wax ci lan lañ ci jublu woon ñu dindi 10 000 ne gisuñu leen ci fichier bi duñu la wax nu ñu tudd duñu la wax fu ñu dëkk mais jox leen ñu 10 000 yi léegi ñu génneel leen fii tegal leen donc il fallait ñu dindi 10 000 yi xool du ñuy wàññee benn région malgré ça mënuñ ñoo éliminer déjà malgré tout ça kon xam ngeen ne lii may lii ñuy def nii ñun <laughs> vraiment sérieux lañ ci def ba mu mat sëkk Benno Bokk Yaakaar nag am nañu 4 millions de parrainage am nañu fu ñu mujjee juge bi plainte contre le soleil bi war nga ko xool ah. fan la ñuy mujjee déposer ay élus amuñu courage def lii ñu def non pas eu courage yow nga yor état yor euh, budget national yor say policier yor justice ñemewoo dem seeti askan wi askan wi nag na déglu liñ koy wax bu baax a baax a baax a baax a baax sàcc tama yomb na de lool sax waaye fa nga koy tëggee du ngeen am fu ngeen ko tëggee kooku moom wax la du ngeen am fu ngeen ko tëggee sàcc tama di dem nag moom ku ne mën nga ko fa may daanale nag mooy du 20 000 parrain ngeen wax danañ leen indil cent 000 parrain ñu ngi nii 100 mille dinañ leen ko indil. donc tout ça ne pas sérieux lii yàllaa ci def loxoom yàllaa ci def loxoom pour wan askan bi ne lii dara sérieux wu ci nit mënta indi clé am nga vérifier ko compter région yi mu ñëwaat toog nga ne ko a ah, gisuma ko te yow agent assermenté signé ko jox la ko yéen xam ngeen ne nit booy da ngay am expertise sax booy def même même ak caay-caay boo koy boo koy def da nga ciy am expertise danga ci ciy aay ciy jéem a aay ndax bu ñu demee ñu soow leen ah, bu ñu demee dinañ leen soow ndax kenn sant woon leen santu leen woon lii ndax mënoon nañu uti yeneen i pexe kon loolu na ko sénégalais yi xam la xew ca conseil constitutionnel preuve a ngi nii ne ce n'est pas équitable ce n'est pas juste te ay njuuj njaaj très clairement ay njuuj njaaj ñoo ci ne suñu clé bañ leen koy jox seen greffier en chef réceptionné ko ubbi ko wax ñu la ca nekk ñu ñëwaat ngeen ne gisuñu benn région dañ bëggoon mais région yi manqué loolu la woon parce que foog nga am sept région minimum ñu ne nañ daane benn gisuñu ko après wàññi dix mille après bu ñu demee doublon yi malgré ça loxo yàlla moo ci laa laa ci dugal loxoom ñoom war nañoo moytu sax ndax ñoo leen ëpp bopp. kon sénégalais yi ñu xam loolu ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal di liggéey la communauté internationale ñu xam li xew ça c'est la preuve man ancien ministre de la justice la garde des Sceaux du ma wax ci ay waxu caaxaan kenn xamee ma ko kon waroon nañ jéem lépp ba mu des lii une discordance maanaam sa greffier la mu signé ak ba ñu ñëwaatee ndax kenn du ko fa lu dul ñoom suñu clé ñoom la ñu ko jox ñu defal ñu reçu ñu ñëwaat ñu ne ñu gisuñu Saint-Louis dix mille parrain kenn gisu leen ci fichier bi fichier bi anamu bu ngeen nee dix mille parrain kay da ngeen di def seen tur ma Samba ma Demba ma et cetera ñu indi leen preuve ci saa si ne ñu ngi nii seen carte ngi nii de nit nag carte am la mën a yor ak carte d'électeur am mënta am leneen bu ngeen ñu waxee pour wate ji leneen lan nga soxla ñu war cee jóg aussi parce que lii bu continuer mooy bésu élection bu jotee da ngay yor sa carte te doo mën a wote kooku il faut ñu xam ko bu baax a baax a baax. ñu ne la 10 000 la nga ne ñu toog tege na le xam gisuñu leen ci fichier bi ñoom ñoo yor seen fichier duñu la tegal ci écran bi nga gis kan la déedéet kon may woo képp koo xam ne kii yaa ngi ci situation bi démocrate yi xam xam li nga xam ne moo xew ñun nag ñun ñun ñun xeex duñu ci duñu ci duñu ci duñu ci duñu amul découragé ñun xeex moom dañ cay dem ba sës suñu mbokk njaago yee nee ngeen vingt mille parrain moo ci manqué dinañ leen indil cent mille yu amul benn werante na Macky Sall xam ne munu maa ci ay élection munu ko munu ko munu maa génn ci ay élection moom bokkatul meru troisième mandat bu dee moom la dese naan ñi nga xam ne dañu taxawoon ci troisième mandat ba xañ ma ko dama leen di génne munu ko munu ko ndax lii sénégalais yee ma ko jox sénégalais yee ma def confiance nde sàccu ma ma dix ans kenn mësumaa jàpp ci dara bien que audité na ma bay bëgg dee dara sénégal yi pare na ma moom mënumaa génne ci ay élection conseil constitutionnel bi mënumaa génne ci ay élection ndax danaa dinañ indi pare naa yu yu leer naññ kon loolu moo doon kàddu yi ma félicité waat vraiment suma militants yi